c'est l'affaire de Souka Mbaye Daane ñu <laughs> bàyyi la kàddu bi ak say gan. Euh, d'accord euh, Adjaratou ni ngi fi am ki nga xam ne rek moom moo di président Macky Sall Sall nga. Lamtoor Arwaar bu Gëdee ak ki nga xam ne rek moom moo di ngañ bawal bawal euh, di ci nuyuwaale waa Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar di leen nuyu lu bare bare donc mu ngi toog sax moom président Macky Sall Sall ñu ngi leen nuyu président. di la fay soxna si di la gërëm di la sant di nuyu encore une fois. Euh, sama lion yi si doxalin bu nga xam ne ñu ngi koy doxal. say lion. mu nekk lu am solo samay lion wala problème. Ah, sama lion yi. Mm-hmm. di leen ñaanal euh, parce que de hier euh, c'est extraordinaire neex na. Mm-hmm. parce que gis naa. ni doon jubilé jeune APR yëpp génn ci mbedd mi. APR <laughs> yi ñoom ñëpp ñu génn ci mbedd mi di tàccu loolu day wane rek. légitimité bi nga xam ne am naa ko ci réew mi parce que ñi doon défilé ñëpp. samay soppe lañ. gis nañ leen aussi tamit ni nga xam ne noonu lañu def ci internet bi loolu may félicité waat encore une fois ndawu APR yi. si taxawaay boobu nga xam ne moom lañ am. Ah. vraiment ak ni nga xam ne noonu lañ ko doon doxale loolu c'est très important moom xam nga bee passé nag waa yeewu ñoo doon jubilé nee na. ban équipe nationale quart huitième de finale verte quart de finale verte. te verte bi <laughs> moo la tee nalaw jamono yi. verre du tax ah, bàyyi ko ma posé <laughs> euh, nga waa président. waaw. li wax ni que poli politiciens yi danoo bàyyi ba élection yi ñëw ñu diaboliser mbirum góor jigéen ñi li tax nga wax loolu. mais looloo dëgg. Mm-hmm. ànd ak les imams politiciens ñu jóg naan woy góor jigéen ngoor jigéen góor jigéen gis réew mi criminalisé criminalisé loi boo xam ne bi leen déjà là mhm. là-bas en assemblée nationale mhm. je l'ai dit partout au moment fii la taxaw wax waxu góor jigéen ma ne ko booy yamal yooyu duñ ci dugg mhm. affaire toot yooyu du am si réew mi Eh, kii Angleterre ñëw na fi man na ko loolu mënta ne comme mooy kii bi Québec bi Canada Canada ñëw na fi bu kii wu bi mën na ko mbiru góor jigéen yooyu teg ko si suuf loolu yëfu toot yooyu Sénégal du loolu du fi am loolu lu am la Macron Macron di ko ruumandaat mën na ko booy yemal am na lu ma ko nangu parce réew suñu Sénégal dafa am ay aada ak cosaan ak i doxalin yoo xam ne moom la ñu. léegi Macron nan nga ko waxee jour bi nga koy waxee bi mu la ko waxee ngeen toog waxtaan yéen ñaan nga ko waxee. moom ne ko booy nag yaa ngi a ëppal man du ma gone du ma yëpp. ni nga ko waxee ni parce que boobu man ak moom rek ñoo toog. ma ne ko soo continuer dama lay sifaay fii. léegi bu nit ki toogoon nag. si loolu mooy li nga xamante ne bi ma la ko. mu ma adet ah, maa ngi jéglu a nekkoon maanaam moom la face to face léegi bu nekkoon mhm. na loo xamante ni bi du ma xawi suturaam mais man ak moom kese bu ñu toogee li ma koy wax wax boo xam ne waxu la nag ak mhm. te je pense que Sénégal yëpp mhm. nekk lu am solo euh. léegi imam yi bàyyi ba élection yi ñëw ñu tëb ay imam Pastef mm. ay imam ay yeewi askan wi naan ngóor jigéen fii ngóor jigéen pa ngóor jigéen fële di bëgg a rey nit ñi tax léegi nag ba nit ñi dem naan ñu naan ku voteel Macky Sall yaa ngi pour promouvoir góor jigéen ku voteel ñu ànd ak Macky Sall looloo daaneel Aliou Sall ndeysaan Ahmed Aïdara noonu la def jéem dem ba buntu kër Aliou Sall yor ñaari góor yi foo naan tam koy def nii hmm. loolu tax gaa yëpp daan ne ah, kenn ko fa ah. di ndax ñoom ñoo ne nañu dépénaliser mbir mi ñoom tamit ñu taxaw ne nañ ko criminaliser tamit nag lu dëgg ñoo ko njëkkee di soxna si dama la bëgg a xamal ne la man munoo maa dugal di jéem man man li ma lay wax li may wax wax naa ko wala waxuma ko man mm-hmm. mosu mos ngeen ma xamee wax di ci génn di arrière. yow mii yow pare kan moo ma xamee wax ngeen yaa ngi nekk du fi am dëgg la loolu du lu leer man mosuma wax arrière àndul ci sa discours boobu Mame Matar Gueye kooku débat lay wut na dem ci théâtre yi man théâtre ah voilà donc foofu laay baabu noonu si dem ci théâtre yi moom mu ngi nii infidèle la nga nii mën na nga ni bu yokkee infidèle daaneel bu jógee infidèle jóg na ko kañ bëriwat moom ak infidèle léegi kenn mënut a daan moroomam te mu topp ma rek bëgg ma siñ fa nga te infidèle ko jàpp na dem ci théâtre mais mais mais mais euh, audience bi te nañu micro yi nag mais audience bi kan moo ko dox imaam yee dox audience bi wala yaa ko dox parce que doo jóge ci élection yi rek gars yi moom kenn kenn xam fa la ko. pour masale ah loolu la. imaam laa woon na leen teel a. ndeysaan jaxase cinq imaam mu nekk ay kulooy imaam. waaw boo demee léegi imaam bi nga boole leen ñu raatale élection yi kenn defet defet bi dafa naqari kon métti woon na ci yow euh, léegi euh, li tax nga wax ni que euh, opposition bi waru waruñoo bàqu di fëgg ay dënn parce que yaa leen gagné foo ko teg maa leen gagné loolu lu wér la ah. demal ayra raaw maa leen gañe <laughs> leen ca Fatick. Mbour. dóor ca Agnam. gañe leen sa Linguère. laal leen ca Kédougou. waaw wat-watee leen. waaw ci Fuuta. Mhm. donc loolu lu am solo la. nañ bàyyi di ñu limal Ndakaaru mel ne Sénégal Ndakaaru leen. est yaa ko gagné. maa gagné. ah li ma gagné dafa bari. dëgg la dëgg la man fi ñu ma fi ñu ma dóor fenn la Touba lañ ma wéq yàgg lañ ma faa kuccal. ak xam nañ ko. Thiès Thiès waaw Thiès kuccal nañ ma fa te loolu yàgg na yàgg nañ ma ko ndax idée fa nekkoon loolu du ma bettu ma. Hmm, Casamance Dakar Casamance waaw fu ñu la yàgg doon. mais Géejawaay yaa bi dafa. butéel ñu ko Ahmed Aïdara macha door mu butéel ñu ko. mbëkk ko. mbëkk ah. Aliou Aliou. daan fay grand dame euh, dëgg la ko waa amul problème. Euh, jërëjëf président. mi ngi naan ma grand poste premier ministre bi mais na tey mënu ko jox. mag ja rakk eh, jërëjëf <laughs> waaw dëgg la de mais njëg jigéen ngeen trop ndax waaye ak ville bu Dakar moom kii jërëjëf merci wax dëgg yàlla eh, du doy <laughs> président la <laughs> mer ok eh, jërëjëf bu nekkoon ki nga xam ne rek moom moo di président Macky Sall Euh, di ko waxaat euh, grital nañ ko happy birthday to you anniversaire euh, démb la woon macha allah c'était bien neex na trop caatu caat caatu yaayam dundal yow mbay daane donc bu jugee ci ki nga xam ne rek moom moo di président Macky Sall dañ koy dalal ngañ ñu ngi lay dawal bawal bawal alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla sant Sëñ Tuubaa di la sant di la gërëm dangaan di gërëm équipe nationale bu Sénégal ci li nga xam ne bi def na ko muy jaloor nga xam ne am solo macha allah di nga am mm. démb football nga xam ne moom lañ football stratégie bi nga xam ne suñu borom daf def na maa ko jox Aliou Cissé ngir mu defar li nga am waaw ko tegee système mm-hmm. de waaw loolu moom wax dëgg dëgg la lépp xam nga mm. loolu borom a koy def ci dëgg la xam-xam xam li nga xam ne moom nga war a teg parce que système de jeu bi bu defutoon ndànk rek mm. musiba doon na am waaye alhamdulilah doo fi nekkee jërëjëf dëgg la eh, xam nga ngañ yow yow yaay nit koo xam ni yaay nit koo xam ne lu ñëw rek nga bokku ca bokku ca ba mu ta da yaay di naan takk ci rëpp dugg ci da nga naa bëgg muy leer rek parce que boo mooy takk ci rëpp yaay takk ci rëpp lu ma xamul voilà euh, léegi nag hmm. euh, démb nag nan gisee changement bi Aliou sa def démb ci match bi ak li mu daw ni mu kii weet warkal la jërëjëf sant yàlla hmm. changement bi Aliou Cissé di nga am première mi-temps bi hmm. système de jeu bi mu football daal di toj kër gi nu mu tegoon ban système ci laa ko woo ko message ne ko yëf yi baaxul. ah <laughs> da nga yor pour da may déglu. système bi ban système mooy li ngeen nekk nii baaxul da ngeen di déglu. Eh, waaw dala da koo woo. dafa def xool ci système bi. la. gis ni système bi baaxul. waaw. yaa ngi dégg. waaw waaw. ma woo ko téléphone. waaw mu bañ mu raccroché ma. waaw. ma ko téléphone mu raccroché ko message. di ko dal na ko désolé. système bi baaxul mu ne ma waaye dugal naa. <laughs> première mi-temps. ma ne koo ah, uh-huh. génneel. xam ñaar ñiy dugg ci terrain bi. mu ne ma kat ma ne ko Ismaïla Sarr daa war a dugg ko euh, euh, Cheikh Kouyaté war naa dugg. mu ne ma ñooñu duñ dugg. waaw ma ne ko ah duñ dugg. waaw dama duñ dugg. waaw ma ne ko waaw ah, baax na léegi. mi ngi xalaat de amul argument Guinée équatoriale de teel dama ne la Guinée équatoriale toj kër ga. waaw dès le premier but bi. waaw dégg man man dama ne la man. waaw égalisé waaw. Guinée équatoriale toj kër gi waaw fu mu la fekk nag. ma jékki-jékki sama téléphone. waaw sonné daal di sonné sama jabar xool ma ma coupé ko muy àll mu woowaat ma téléphone ma coupé ko. fayu comme ni mu la defoon. mu envoyé sama soxna vocal. ne ko ngir yàlla na ma dimbali génne ma ci. waaw nga def nan. soxna si na ma dimbali. Mm-hmm. ma ne ko nu ma koy dimbali. waaw fii laa ko na def ni na def ni na def ni na ne ma lànk. daal di may dimbali. soxna si mm-hmm. ma dimbali ma Sénégalais nga. ma ne ko d'accord. waaw. ci laa ko woo. mu ne ma mm-hmm. gannaaw nu may def. nga ne ko lan. mane ne ko dugalal Sarr ak Kouyaté. waaw te Kouyaté. waaw bu mu sës ci défense bi waaye na dem ci attaque ba. jaajëf waay. après. centre ba ci la ñëw Kouyaté dugal. merci waaw deuxième waaw. mu aaraam ma waxal ma grand merci ma ko des na. waaw te Ismaïla day dugal. Eh, waaye noo xamee lii loxo bi waaye. non merci beaucoup ngañ kontaan après nga ne ko Ismaïla day dugal boobu instant boobu yow ban level la la fekk daal ban level. ñu ne mbalañ fang. waaw Ismaïla toj kër gi. mu ne ma gannaaw ku may dugal ma ne ko téye na dooy na. muy troisième dañ lay catu. tur bi waxagoo ko ba léegi de am na am na ñetteelu joor am na ñetteelu joor bu dugg. sama sama yoon ci loolu. gañ est-ce que seetaan nga match bi wala boobu Aliou la di sant maa ngi koy xamal lii ngeen di reen yi sax tax na leen jox classement. Eh, bu def ah, noonu waaw bu waaw léegi wuyu ma xam nga troisième Aliou Cissé yaakaar. léegi yow troisième bii bi. oh nice na. wuyu ma troisième bii bi. waaw nice na. léegi yow ban ban ban kii bu mag ban joueur bu mag la la fàttali. teg dënn daañal jox ko lay laa kon kooku fàttali na ma Rummenigge sóoru almaa la woon num daan fàttali na ma Paul Breitner sóoru almaa la woon fàttali na ma Maradona fàttali di mu pilier di nga am fàttali na ma ki nga xam ne moo la Socrates ndeysaan sénégalais waaw fàttali na ma Baba Touré fàttali na ma Mbaye Fall fàttali na ma Badou Gaye fàttali na ma ki nga xamante ni kii dégg nga moom lanu naan <laughs> mbëkk bal teg dënn ak mbëkk bal teg dënn dóor mu dugg égal Thierno Youm ak Thierno Youm macha allah. football. ah koo xam da nga koo xam. dëgg la duñ ci caaxaan. ni mu xamee woon ah. corona. corona. waaw ni nga xamee woon corona. waaw kay léegi match baa ngi noonu mi ngi ñëw léegi tegal ñu match bi. yàlla na leen RTS yóbbu ci yoon ak bi ngeen di teg ak nag bii di ñëw nag burkina bu burkina ah xoolal lii. troisième ba. Saara Saara ko. yéen ak RTS billaay gisagu leen dara si yoon la ñuy RTS ñëw RTS nga xam ne match yi la yaakaar a amee ay abonné yéen RTS dara leen rek RTS fi mu ñi ngi ñi ngi xool télé yi wane match bi. ah dañ naan bon Walfadjri a montré les buts ah bon Walfadjri a montré les buts yow. Sénéra Walfadjri Babacar Diagne woote. Cheikh allo Babacar Walfadjri dafa teg bii. ah waxal sa gars yi waxal sa gars il faut qu'il arrête. soxla <laughs> la xool boo koy reporté RTS dañuy boole xool RTS ñoom du ñu seetaan seen ñu dégg seen rajo de yeneen rajo yi la ñuy déglu <laughs> ku juum ba ne mat léegi malal malal léegi malal bu waxoon bii lu mu duñ koy def kan malal malal boobu sur écoute lañ ko def RTS sur écoute lañ ko def malal malal sur écoute lañ ko def na ko bés boo reporté <laughs> non RTS li doon voilà dafa am ay boo yoo xam ne bi da leen a dañoo ragale kii rajo yëpp lañu jàpp astafurlah ay waaye fréquence yëpp la ñuy déglu eh, wal fajri boo naan bit ñu ñu lay boole mais man ah, am na benn fréquence ah <laughs> waaw du ma fréquence bi mais am pulaar lañ ko eh, eh. ña nga xaw ma ku moom rajo bi nag. xaw ma ku moom rajo bi. ah, ah yaa ngi koy yaa ngi koy yoole nag lii mooy yoole. Ah, yoole da a waroo koo yoole da koy yoole. et eh, dañuy ah, wax ah, alcool ah, di wax di ah déedéet bu ko yoole naka moomu ko est-ce que amul rajo ah wax nga dëgg en tout cas daal man mii démb démb zappena ba waaw mën na ne macha allah voilà euh, jërëjëf euh, ajaratu donc di leen jox rendez-vous bu suba incha allah rabbi ci beneen eh. émission Nepad musicale donc ba suba incha allah daane nuyu ci nag sama chéri sama doom Choupa borom euh, Grasse Mat moom ak ñoom Melo et toute l'équipe de Grasse Grasse Mat tous les samedis à partir de 11h maa ngi leen di nuyu bu baax a baax euh, suka sama doom joojule maa ngi lay nuyu souhaiter un joyeux anniversaire à Gorgui Sow Gorgui Sow ma nga foofule ca Cambérène 2 Gorgui maa ngi lay ñaanal anniversaire bi yàlla na nga koy yàgg fete sama rakk joojule jaajëfal nag ñi nga xamante ni ñoo jàppoon ci émission bi ku ci mel ni ab Ablaye Diallo Keba Thiam ak Babacar Lo Louis Faye waaye remercier également euh, du côté de la régie Jacques Gabriel Préra ak Abdou Top ak Diène jén maa ngi lay remercier bu baax chéri Ramatoulaye maa Bété Bété maman maa ngi lay nuyu bu baax souhaité leen euh, une euh, très bonne euh, soirée di kontaan ci yéen bu baax a baax bu nu randoo ca kanam tuuti rédaction bi dañ fi teew jox leen journal bi en wolof ñun ñu dellu si ci kàttanu yàlla suba incha allahu rabbi